muy événement moo xam muy place moo xam muy ay yëf moo xam nga artiste bi génne son moo xam ay wax yu sew yoo xam ne nga bëgg ñu jaay ko ba mu gën a jar fii nga koy indi donc foog naa ni mën ngeen dem euh, ñu xool li nga xam ne moom mooy sport bi laata may am sama ñaari invité yi ñu ñëw ci plateau yi waaye balaa may bàyyi invité mu ñibbi dinaa ko laaj ndax li ma la jaay est-ce que jar na bu nee waaw ma bàyyi ko mu ñibbi boo nee li ma la jaay jarul fii la ñuy fanaan ma ak yow. ayca nañu dem xooli sport bi te ñëwaat léegi léegi ci plateau bi man ak samay invité. aja mbokk yi xéewal dikkati na ak entreprise bii di monsieur et madame Nia Charlie yow mi bëgg kër mbala oto mbaa terrain daw gaaw balaa muy jeex wooteel ci numéro yi 78 227 52 93 wala 76 773 82 85. jamono liggéey la ñu monsieur et madame Niassar li ñoo leen di ñaanal peetu jàmm. liggéey war na ñu ngi noonu donc tey wax naa ni euh, samay euh, invité tey mooy monsieur ak ki nga xam ne moom mooy madame Niang euh, ñu ñëw ci plateau bi ma bàyyi leen ñu nuyoonte ak téléspectateurs yi laataa ñuy dugg suñu waxtaan sa caméra mu ngi ne wala fan la El Hadj bii la wala bële ban la ciy xool bu noppi rek ñu dem ci suñu madam Niang mu ñaawul mii. daal di koy bàyyi mu nuyonte ak eh, téléspectateurs yi laataa ñuy dugg ci waxtaan wi waaye foog naa ni ku war a sax njëkk nuyoo waaw man mii ndax du ma indi seen kër problème kuy njëkk nuyoo monsieur mooy kilifa gi ah waaw waaw monsieur maa ngi mais il est dafa galant te nga jox ko micro bi mu ne non non joxal madame mais yooyu yëpp sama yoon nekku ci naa ko xool rek moom ba xam lan lay def salaamaaleykum monsieur Niang. waaw maaleykum salaam Abba. yaa ngi ci jàmm. waa sant alhamdulilah ñu ngi si jàmm. ma bàyyi la téléspectateurs yi. waa di wax asalaamaaleykum Sénégal ñëpp. ku si di nuyu ñëpp ku si nekk euh, turam ak santam euh, di nuyu àddina bi yëpp mm-hmm, mm-hmm. waa diaspora bi bàyyiwuma leen euh, di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bëggee MNNS mm-hmm. di nuyu aussi waa TFM si invitation bi ñu invité am na solo di ko rafetlu am na solo di wax ne aussi entreprise yu ndaw yi man bu ñuy ñëwee fii seen produit jaay ko day gën a yomb parce que lépp fii la xewe quoi waaw di jox soxna si moom mu développé parce que mooy comme li may wax rek may góor waaye moom mooy jigéen waaw eh. te jigéen su su baaxee euh, day mën a taxawee place place yaay daal am na solo waaw moom sama soxna la sama lépp la daal waaw am na solo waaw ma jox ko mu développé ayca monsieur merci beaucoup donc soxna si Niang euh, sa caméra mu ngi nii ma bàyyi la nga nuyoon teeg euh, téléspectateurs yi d'accord asalaamaaleykum waa ayca ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñu sant suñu ñaari waajur yi bu baax mm-hmm. di sant suñuy fami yëpp. famille mhm. Ndiayeen famille Toobeen famille Jangeen si yéen. Mhm. bàyyiwuñu kenn naan asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora. Mhm. Euh, man la ma dem Nia Sarli. ñu ngi bëggee képp ki xam te ne rek mi ngi bokk ci groupe MNS bu ma dem Nia Sarli ñu ngi leen bëggee bu baax a baax. waaye tamit di nuyu Aba bu baax a baax. maa ngi lay fay. Euh, di ko ziar aussi. maa ngi lay émission am na am na solo. jërëjëf kon gars yi. jaajëf <laughs> kaay la wuyu si Aba. nañu waxtaan ay ci léegi nag <laughs> fi ñu toll nii euh, buñ la doon laaj lan mooy MNS. waaw MNS euh, société bi nga société bi nga xamante ni la dafay dimbali ndaw ñi. di mhm. dimbali mag ñi aussi. Mhm. parce que lépp li nga xamante ni rek jàppalante la ci biir. Mhm. mi ngi ci groupe MNS. te lépp dañ ko yombal nit ñi. yombal ko askan wi. Mhm. parce que loolu moo ñu moo ñu ñor. parce que mhm. dañoo nekk doomu Sénégal di yëngu ci Sénégal lu am solo li nga xamante ni euh, dafa war a fees kon euh, avant may développé maa ngi nuyu ma jaaga bu baax a baax ak euh, fa kii soxnaam ak yaayam di nuyu waa Bambey bu baax a baax. Mhm. ndax lépp ñoom la ñu ngi leen ziar bu weex. tey MNS buñ la doon laaj ci lan la ngeen nii yëngatu ana loo ñuy wax ñi nee nañ ay oto ngeen di jaay ñi nee da ngeen di jaay suuf mais dafa mel ni yi ngeen di def yëpp daa xaw a bëri ci lan ngeen yëngu waaw li ñuy yëngu moom bari na macha allah mhm. mais dañuy jaay cash nag mais société bi li muy def tontine moo ëpp hmm. waaw parce que dañoo toll si jamono ji nga xamante ni dafa metti borom kër yi ak soxna yëpp dañoo bëgg a am mhm. mais pour nga dem jënd cash dafay metti moo tax société madame ñaa bu am NS ñëw defal leen lépp mu yomb mhm. bu dee terrain mu da leen ko defar par mois bu dee tabax mu di leen ko defal par mois. dund bi mu di leen ko defar par 15 jours. Euh, oto bi aussi par mois xaalis bi aussi par mois ko bëgg a chargé sa bitik par mois ngay natt lu waay bëgg daal euh, MNS am na am na ko. kon NM kon euh, tey jii lu waay yor MNS mais tey jii bu dee par weer laa koy def tamit dina am assurance wala loo xam dinaa ko teg sa loxo lu wóor loo xam ni tay bu may fay ba fenn fi may yam fa mënatumaa fay euh, dina am loo xam dafa war euh, am suma diggante man ak yow. ay kayit waaw parce que xam nga lépp gis rek kayit mhm. kayit lay garantie. Mhm. noonu lay demee léegi nag euh, tey nit koo xam dafa bëgg suuf wala mu bëgg oto wala mu bëgg loolu tey bu ñëwoon ne temps laa war a indi day indi moitié bi wala dañ koy wax somme bi mu war a indi waaw. waaw bu dee wàllu wàllu terrain yi moom euh, monsieur Niang moo ci développé. moo géré moo géré kon nañ ñëw ci monsieur Niang monsieur Niang tey jii euh, ku soxla woon. terrain comme man exemple aw ma terrain te boobu ba tey maa ngi liggéey te aw ma som koo xam ni war naa ci mën a am terrain ay somantu laay am som yu ma ibu di jox Babacar ñëw jox ma ko ma boole ko ne damay wuti terrain tey lu yo ma lu ndaw ñaata minimum laa war a indi pour nga mën ma jox waa Abba mhm. euh, c'est que ñun bu ñu déggee ñu ne entre entreprise euh, madame Nia Sarli mhm. c'est monsieur a madame Nia Sarli en plus euh, am na aussi ñoo xamante ne nga permettre ma rek parce que génn naa hors Euh, dafa am ay homme de l'ombre quoi. Mhm, ñu ne ci ginnaaw euh, soo leen gërëmulee rek. Mhm. après yaa ma gën a xam. waaw ku mel ni euh, Mansour Mbaye maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. ak Madiaga bi madame doon wax. sànq parce que bu lëg lekkee alam naka gërëmee coono. parce que tey suñu jëmm moo feeñ mais ñu ñu enture boo xoolee tey maanaam ñoom ñoo gën a sax sonn si ñun. waaw ah, di jëw ñuy aussi képp koo xamante ne mooy comme ñi xam ne ñoo nekk si diaspora bi. bokk suñu groupe té diñu bëggé am confiance ci ñun euh, diñu jox seen xaaliss xaalis. Mhm. Euh, mën naa see cité ay quelque noms mais mënu mënumaa jeexal ñëpp. Mhm, mhm. ku déggul sa turit xam ni euh, nuyu naa la. xam nga di jël nuyoo di ko di nuyu. Euh, maître sec. Mhm. conseil juridique bi nga ne nek mhm. suñu conseiller euh, côté ak ci domaine bép mhm. ndax tay lepp luñu man ginaaw yalla mom amna ci de responsable. Ah, di euh, suñu client yi nak di nuyu ku melni sama Euh, ma jaaga mm-hmm. di gërëm suñuy waajur mm-hmm. euh, mooy suñuy ndey ak suñuy baay di mm-hmm. gërëm aussi kii ma may soxna tey parce que occasion la pour tey ma wax ko muy xalifa topp di ko wax un grand merci ak fu mu mën a nekk euh, na xam ne maa ngi koy bëggee bu ma ñëwee si wàllu terrain yi ah. terrain yi tey boo gisee tey mu am tontine mooy cinquante mille sax par mois ku ko am mën ngaa am terrain si ñun cinquante mille waaw cinquante mille par mois hmm? waaw ku ko am mën ngaa am terrain si ñun parce que mooy comme li ñuy wax rek jamono ji neex na côté bi naxari na côté bi mhm. euh, moo waral aussi ñun euh, du ñu jël focaliser aussi par exemple borom million yi rek mhm. parce que entreprise bi euh, philosophie loolu taxu kaa jóg philosophie mooy dimbali ñëpp waaw ah, te booy dimbali ñëpp da ngay xool kii néew doole kii yemale ak kii yorul dara ak kii yor lu tuuti sax mën a dimbali nag waaw ah, merci mhm, <laughs> waa di wax ni bu dee cees la Euh, chaque fin de mois, on a 50 000 à 100 000 par mois. Thiès. Oui, Thiès. Vous 150 000 à 100 000 francs par mois. Lagros, 300 000. Mboro, 300 000. Singe, 100 000 amne par mois. 50 000 amne. mois. Yen, 50 000. Malikunda, 150 000 à 200 mhm. 000 par mois. Mm -hmm. 300 000. Sangalkam, 300 000. 300 000. cent mille Mbour 300000. Ndayane 300000. cent mille aussi. Tivaouane am na deux cent 200000. guy noote jama mille mhm. waaw mhm. yooyu noonu yëpp am na. mais tey jii euh, kuy fay ay 100000 ak mille par weer. Euh, ci mhm. am ab terrain moom ba ñaata at ngeen koy pousse pour mu fay ko. wa ça dépend selon si. Euh, terrain bi terrain bi mu jël. parce que tay su le euh, terrain bi euh, da dem à 4 millions voire 5 sans dépend daal. Ah. xam nga lolou fofu lañuy cumuler ñu xol ki kat su fekkee tay day fay 50 000 par mois. Hmm. ñu estimer que dans 10 mois genre exemple xam nga 10 mois 11 mois 12 mois yoy yëpp amna et bu do mo xolal ci APS bi boy dem ba booy ñëw ñaata ngay fay par jour Thiès mom xam naa ni bu ngeen ma soxlaatee. ay reer ak yooyu moom xam naa da ngeen may fekk Thiès rek du ngeen ma xoolal du ngeen ma dimbali rek ngeen xool ma APS bi booy dem ak booy ñëw ma def sama ay calcul damay tabax damay dem Thiès ni damay tawax 50000 par heure donc foog naa ni euh, fi ñu toll nii ay amna ño xamni ay kilifa lañ ña nga toogoon ci seen kër japp seen bop jaxlé ne kañ lañu am kër mais fiñ ton ni amna ben na ouf de soulagement euh, bu am ci ñom ci euh, li nga xam moy innovation bi nga xamni indi ngeen ko ci suuf vraiment bu wesso fexé ba ñepp am dama yaakaar ni ay tuyaaba bi nga xamni di ngeen ko ci am rek lolu yalla moo leen koy fay mais di tay ku leen doon soxla bëgg leen a fekk ci fi ngeen nek ci yan numéro ak est-ce que am ngeen Facebook Instagram ak yoy wala place bi nga xamni fa lañ leen fekk foofu fan la wa ñun la plupart comme ñu bari dañuy wax pour ñu faral di dugg ci réseaux sociaux mhm. mais euh, man en personne. Mhm. dama ragal ci réseaux sociaux. deug la de boy liggéey mom parce que euh, euh, lu bari mën na see defaroo comme lu bari mën na see yàq. deug ñom adu aadama moo fa nekk. Mhm. waaw te ñun bo xolé suñu entreprise. ñu ngi ñuy seetaan. c'est la famille. parce que suma né c'est la famille bo xolé tay day melni ni nijaay papa jarbat genre yooyu mooy ñoo nekk suñu entreprise. am na solo waaw yàlla boole ñoo nag ñoo xam ne ñu ñu gore. te nit ñu direct ci Facebook bi. Ah, mais initiative bi nga xam ni mooy tontine bi. Mhm. moo ja moo impressionné ñëpp fi ñu toll nii donc euh, ñëpp a ngi koy. ñëppoon koy waaw waaw waaw donc su monsieur Niang pare faaw ñu dem euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, innovation parce que ñu bëri euh, ñu ngi ne Abba seen numéro seen numéro donc dinañ ci ñëw di ngeen xaar numéro yi dinañ ko indi mais initiative bi nga xam ne mooy innovation bi moom la ñëpp wax tontin bi tontin bi excellent excellent donc vraiment am na solo. Mhm. waaw man li may jeexalee mooy. amoon nañu su am nañ suñu chaise boo xam ne mu ngi Dakar. Mhm. mais si décembre bi. Mhm. si décembre bi dañ koy comment dirais dañ daa am ay entretien yu ñu siy defar ak ay réparation mm-hmm. euh, am na aussi benn siège boo xam ne ñu ngi koy préparé tijji ko mm-hmm. euh, bientôt à yan jalaaw di nuyu waa jalaaw gépp de passage mm-hmm. waaw foofu nag mooy suñu dëkk mooy suñu siège foofu la mooy suñu feeful euh, ku ñu bëgg a jot boo ñu woowee si 78 227 52 93 di nga ñu jot wala 78 77 971 76 di nga ñu jot Euh, ma jox soxna si moom mu mu mu mu yeggali daal. waaw parce que foofu ñu nekk am na solo lool lool ndax euh, moom la internet di wax fi toll nii tontin bi tontin bi lan moo waral création boobu ak fan la jóge ak naka ak nan lay euh, demee foofu. waaw abaat tontine yi moom yàgg na macha mhm. allah depuis 2012 ñu ngi ci. Mhm. bu mu amee papier nag yàggul sa ay 3 ans lay mat. Mhm. mais depuis 2012. yaakaar naa turu madame Niang. Euh, mooy loolu sàpp na ci liw ni ñi waa waaw tontine nag dafa bëri parce que comme monsieur dafa développé ci euh, euh, tontine terrain bi mhm. kon damay développé ci tentun tabax bi ba pare après ñu doogay continuer yaa ñëw TFM yaa joxe mhm. sa numéro en direct dinañ la woo ba nga dagg la luñ la jaay day jar xaar leen ko mu pare rek dina wuyu ñëpp xaar leen ko mu pare waaw léegi nattu tabax bi ta aussi chaque mois la mhm. mais buñ ko defee chaque mois Euh, maanaam dañ koy yombal parce que bu njëkk bi ñu daan def dañ ko daan def par cent cinquante mil mhm. cent cinquante mille par mois du ñëpp ñoo ko mën a génne te dañoo toll si jamono ji nga xam te ni defaal comme genre euh, di jàppale nit ñi ci tontine yi aussi mhm. moo tax bi bu mu jeexee ñu yëkkati di nattu tabax bi nga xam te ni chaque mois dañ ko def vingt cinq mille à trois cent mille maanaam kii nattu vingt cinq mille am ak kii nattu trois cent mille am ñoo yem si groupe bi képp ku ci bokk nag incha allah euh, sa fondement bu jotee da dem rek wax ak mu defal la sa début nga envoyé ñu ko ñu livré la sa matériel yëpp suñu la ko livré nag sa suñu la ñu ne chaque mois da ngay fay cinquante mille wala chaque mois 200 000 dañu la de 25 000 à 300 000 yu ñu ko sos yow yaay xool li ñu la livré ci matériel nu mu toll su noonu nga koy fayee ba mu jeex tàkk. tey ji am na ñoo xam ni euh, dimbali nga leen ànd ak ñoom ngeen tabaxal leen ci tontine bi. Mhm. ba ñu am seen kër ba fi ñu toll nii foofu lañ dëkk. waaw waaw am na waaw. toll ci. Eh, bari nañ de. bari allah aussi waaw bari ñoo xam ne dem ci tontine bi di joxe. cent cinquante mille trois cent mille cinquante mille ba dem ba am seen kër ba dëkk ci. Eh, bari na <laughs> bari na non suñ koy lim dañ fiy fanaan. <laughs> parce que moom ak terrain soo natu terrain yi ñoo yem bu ñuy lim fii dañuy fanaan te duñ fi jóge. macha allah kon danaan rek bari na te naan leen aussi natu tabax bi am na njariñ eh, vingt cinq mille à trois cent mille ñu indi madame Nia ak monsieur Nia. ak monsieur Mbaye ñu livré la sa matériel bi nga xamante ne ngay defee sa fondement bu dee da nga fondement woon ba pare. ñu livré li nga xam te ne moom ngay yëkkati ba sa coulage ba sa caabi clé sa lépp da koy tontin yaakaar naa loolu foofu la euh, MNS euh, yem ak yéen macha allah ñu naan ñëpp ngeen ñëw Sénégal gi yëpp mag ñi ndaw ñu yéen ñëpp ñu jàppoo suñu biir jàppalante suñu biir te xam ni njëriñ mi ngi Sénégal fii. en tout cas damay euh, wax dina yegg ak yéen fu ëpp fii parce que sama équipe. commercial sama directeur commercial bu dee ñu ngi may seetaan dama bëgg def lu ëpp lii damaa bëgg ñëw. fekk ñi sur le terrain maanaam dem fekk leen sur le terrain ak ñoo xam ni euh, bokk nañ tontin ba am kër ba dëkk ci ma dem seeti leen waxtaan ak monsieur ak madame Niami ndax li ñuy def dafa am solo ñii li ñuy def du pour ñoom.

wala ngay luye nekk góob borom kër bu borom luyaas nga mbaa borom néeg boroom kër gu ne rêvé na am këram toog ci digg këram te yéen ku leen topp yaakaar naa ne ak fi ngeen nekk dinga am kër donc fàttaliwaat ñu euh, seen ay numéro euh, sant naa leen gërëm naa leen ngeen sant ñi ngeen bëgg sant euh, bu ko defee ma bàyyi leen ngeen dem ndax xam naa ne amoo leen jot. ah waaw natt yi dafa acca acca acca waaw ki nga aussi. Euh, dafa bëgg euh, ubbi bitik mhm. te amul doole maanaam am na ci am na ci waaw mhm, mhm. chambre à coucher yi aussi am na ci bijou en or am na ci maanaam tontine dem na ba 10 millions ba ñu ngi euh, commencé waat di def lu ëpp 10 millions parce que si 10 millions la ñu bëggoon a yem parce que groupe bi dafa bëri macha allah commerçante yi ndaw yi aussi defar nañ leen ay nattu 5 jours yi nga xamante ni chaque 5 jours dañuy mën a remplir seen boutique pour mu gën a fees defar nañ leen aussi bi nga xamante ni dundu njaboot bu madame Niang Sarli chaque euh, 15 jours 35000 daañu la livrer bépp dund bi nga xamante ni euh, da nga koy soxla sa kër te lépp en gros lay doon par sac-sac tegale ci 350000 pour sa dund gën a yaatu. am na solo waa loolu yëpp daal mi ngi ci tontu ni daal yaatu na bëri na ndax bu ñu koy lim moom dañ fiy fanaan. am na solo fanaan boobu laay bañ. li duuf ci nag wi du xaj ci cin li euh, donc balaa ñuy wax seen mot de fin ma leen di laaj ndax li liñ lay jaay daa jar am déet dañuy dem xolaatu spot bi te ñëwaat léegi léegi ci plateau bi MNS monsieur ak. madame Nia mu nekk lu am solo lépp ñëpp lu nekk ne ngi ci biir te ñi taxaw lépp ñëpp lañ nañu dem xoolaatu sport bi te ñëwaat léegi léegi ci plateau mbokk yi xéewal dikkati na ak entreprise bii di monsieur et madame Nia Charlie yow mi bëgg kër mbala oto mbaa terrain daw sil gaaw balaa muy jeex. Hôtel ci 78 227 52 93 Voilà, 76 773 82 85. jamono et madame Niassar li ñoo leen di ñaanal war foog naa ni euh, man sant naa leen en tout cas gërëm naa leen euh, donc di leen xaaraat yeneen plateau parce que li duuf ci nag bi yëpp comme ni nga ko waxee du xajul ci cin li donc il faut ñu taxaw taxawaat mën a waxtaan ci lii euh, ba àdduna yëpp mën cee jot ba ñëpp mën koo xam donc fàttaliwaat leen ñu seen ay numéro et ngeen wax ku leen soxla fan lañ ñëw pour fekk leen fa ndax foog naa ni ñëpp dinañ daw dinañ daw song monsieur ak madame Niang. incha allah suñu numéro yi 227 52 93. wala ngeen woote ci 77 960 11 76. wala ngeen si woote ci 78 247 15 99. kii monsieur et madame Ndiaye ñu ngi leen xaar yéen. képp nga xam te ne yéen dafa sore ci yow tamit suñu assistance euh, monsieur mbay ñu ngi koy nuyu bu baax mu ngi géejawaay. Euh, daañu la boole ak ñoom moom ngeen ñu dugal fa directement. ñu ngi leen di kontaanee bu baax ñu kontaan bu baax ci ab. Euh, ci Aba. jaajëf ñu ngi leen bëggee bu baax a baax a baax <laughs> jaajëf merci beaucoup Ndane Niang monsieur Niang lan mooy sa mot de la fin. non sama mot de la fin mooy di rafetlu ak kontaan accueil bi ngeen ñu accueillir. Euh, di leen wax ni ca kaw ca kanam rek. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, comme ni nga wax rek li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li. ku déggul si ñu tudd la wala ñu nga déggul ñu wax ñu la beneen bu ñëwaatee maa leen ko wax moom bi yéen bu ngeen ñëwaat moom faaw ngeen indi moom ay liste nee na nee na nga nuyu ko waa kër maam ndax ñëpp a koy seetaan nii. waaw may nuyu may nuyu waa kër famille maam Babacar Ndiaye yëpp. Eh, eh, parce que xam eh. naa tey fii bu amoon téléphone moom abaa tey bu ñëwee dañ koy daan <laughs> waaw ñu nuyu sama famille jëkkër yëpp dem ba jama di nuyu sama famille ñëpp bàyyi kenn su ma limee damay juum di nuyu sama goro sëñ Touré Ngom nuyu sama nijaay Tàndaxa Ndiaye naan ziar naa leen yéen ñëpp gis nañu ñaan yi gis nañu accompagnement bi. am na solo am na solo merci beaucoup Abba merci beaucoup à monsieur et à bu baax waa MNS donc euh, vraiment di bég ci yéen ci ànd bi nga xam ne àndoon nañ ko ci euh, plateau bi man ak ñoom donc tamit yéen mën ngeen def euh, comme ñoom lépp rek looy jaay bëgg mu jar wala nga koy wane bëgg mu feeñ ñu ngi fii ci li nga xam mooy groupe Futur Média waaye suñu ay commerciaux ña nga fi nga xam ne moom mooy ca CICES ca fi nga xam mooy ca ku fa dem fekk fa suñu ay commercial yu baree baree bari ñu nga fa def liggéey bu am solo man tamit xamna ni à partir de suba wala ginnaaw suba dina am yenn émission yu may defé fi yeneen yi makoy defé fofu nga xam ne ci mooy foire ba di kontaan encore une fois ci équipe bi nga xam ñu ngi ci terrain bi di bëc ci ñom bu baaxa baax di fàttewu ma samay partenaire man tam ben yoon ñom seen client la ñuy sant di gëreum ak seen waa kër ak seen famille mom mi mii kat bu mag la ndax ben baat ñaar mu ne ma ngi gëreum samay goro mom mi tamit ci commencement bi leen ni ngi sante di gërëm ñëw may jabar man nak awma seen fay yéen ñi japp ci sama combat samay partenaire samay sponsor ma ngi leen di sante ma leen di gërëm bu ngeen bëggee sax ma dem xooli leen te ñëwaat léegi fii la <laughs> votre émission vous a été offerte ma ne may ma ambiance may ma show may ma lu am foofu rek ma tàngal sama yaram bu baax a baax a baax a baax a baax donc mooy li ma la wax euh, ambiance